république ak ñi mu àndal bokkal liggéey bi sénégalais yi leen fi teg di leen fay jox leen lu ñu leen liggéeyale dañu leen di war a wax li leen di defal mooy benn sénégalais yi fal président la république jox ko ay moyens yu muy liggéeyee da dañoo am sañ-sañu président di leen wax li nga xam ne moom la leen di defal kon bu fekkee loolu am na du ñu mën a def lu dul rafetlu ko rafetlu ñu fas yéene di wax ak askan wi waaye lenn moom ma ci xaw a jaaxal wala yaar boog bu njëkk ba mooy le fait que ñu def ko fukki fan ak ñeent parce que président de la République il est président de la République 24 sur 24 7 jours sur 7 12 mois sur 12 kon askan wi am nañ sañ-sañ ñu di leen wax li ñuy def lépp 24 sur 24 au li ñu def ko 24 14 euh, jours jàpp naa ne l' information doit être xam nga journaliste sëñ Mouhamed ñetti yëf la journaliste mooy bëtu askan wi mooy nopp askan wi mooy làmmiñu askan wi kon dafay baax ki yor réew mi di jaarale ci journaliste bi li mu bëgg askan wi xam ko kon lu mu gën a bari moo gën format bi nombre bi ëpp na bi ci des mooy jàpp naa ne li euh, li ñuy xaar ci gouvernement bi man de loolu laay xaar ci ñoom ñuy ñëw déclic ministre yi di ñëw am na ñuy ñëw de di ñëw faram fàcce di ñëw jàkkaarloo bi autrement dit fa sénégalais yi dëkk seen nopp ñu di leen fa ñu ñëw di wax ak ñoom am na lu faam wax sànq conseil des ministres bu jeexee rien am warul tax warul tee porte-parole du gouvernement mu ñëw def la synthèse du communiqué du conseil des ministres wax ko ci kàllaamay réew mi parce que nag ñoom Sénégal ñoo leen fal di leen fay war nañ leen wax ci réew mi mm-hmm. waaye nag euh, format bi aussi am na lu mu nirool li ñu daan def assemblée sax mooy le questions d'actualité gise nga nag le euh, le représentant constitutionnel du peuple sénégalais ce n'est pas les journalistes c'est l'Assemblée nationale ñun de bi ñu ñëwee ci assemblée dañ fa fekk ñu les questions d'actualité au gouvernement douzième onzième législature ñoom waa Wade ñoo ko fa bàyyi woon waaye nag biñ ñëwee ñun ñoo ko jëfal. mais par exemple fi ne nii bu ñu doon dem amatuñ premier ministre. nit ñi dem waaye gouvernement ba léegi am na ministre yi mën nañoo dem. loolu bokk na ci xëy na li tax maam mbirum poste premier ministre moom war na ko seetaat effectivement ça dit que parce que l' assemblée nationale mooy représenter le peuple sénégalais dafa am ñaari mission boo xam ne wala benn bi dafay dugg ci le gouvernement di fa ñëw di wax ak ñoom muy second appel le contrôle de l' action c'est-à-dire que chaque semaine wala tous les quinze jours wala une fois par mois gouvernement bi dem wax assemblée li mu def ci diggante boobu je crois que lu mel noonu war nañ koo dellu si waat te améliorer ko ñun tàmbali woon nañ koo def waaye am na ci ay ay pour man loo xam ne warees na ko mën a améliorer muy yokk nombre euh, opposition bi question yu ñuy posé xëy na bu fekkee ministre yoo xam ne question yi concerné wu ñu bañ faa ñëw parce que imaginez Mohamed pendant toute une journée nga mobiliser tout un gouvernement alors que les questions ça ne concerne que cinq ministres je crois que lu mel noonu mën naa éviter retour sur expérience c'est intéressant mooy euh, assemblée nationale